neuf cent cinquante trois logements yu ñu fi bëgg a def ci cadre cent mille yi nga xam ni président Macky Sall moo ko sumb teg ko ci loxo ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'hygiène professionnelle pour maanaam ñu formaliser ko ko tey kontaan nañ trop recevoir leen fii monsieur le gouverneur monsieur le chef de service des domaines du CADAS waa urbanisme ak commissaire central bi ñëpp ñu fi taxaw ak sëñ bi mbakke ñu ngi ñaanti sa barke maam lii ñu fi sumb tey suñu borom may ñu kàttan ñu fekk ñu yeggale kook jàmm te mu doon njëriñu askan bi comme ni ko réew mi bëggee nguur mi bëggee kon kontaan nañ tey pour def première pierre bi di ñaan yàlla may ñu sago ju juñ ko yeggaleeg jàmm ak salaam mu doon njëriñu réew mi yëpp njëriñu askan bi yëpp comme ni ma ko waxee léegi. logements sociaux yi moom mooy li nga xam ni moo tax a jóg Euh, programme cent mille logements yi ndax euh, président président Macky Sall bi mu ko tegee dafa njëkk a xalaat ñi nga xam ni mooy euh, ñi nga xam ni mooy ñi ngi ñi ñuy wax ñi nga xam ni seen koom-koom dëgërut borom revenu fable yi ak irrégulier yi ñi nga xam ni du toujours la ñuy mën a dajale ñoom la njëkk a tax xalaat bi mu jógee cent mille logements yi léegi ci kaw loolu aussi mu gis ni askan bi yëpp tey li leen gën a soxal Sénégal famille boo gis lu ko gën a soxal mooy ku ne bëgg nga foo teg sa njaboot muy maanaam dëkkuwaay te dëkkuwaay toll na foo xam ni seer na te métti na ci askan bi mu xalaat programme cent mille yi dénk ko waa euh, urbanisme ne leen xool leen nu ngeen ko formaliser ba mu gën a ñoŋ ci ci ci ci askan bi programme bi nag comme ni ñu ko waxee objectif am mooy accélérer offre bi maanaam Euh, ñi euh, logement yi ñuy tabax ñu yokk ko te lu mu gën a gaawee ci diiru cinq ans ba pare beneen objectif bi ci topp mooy ñi nga xam ni ñu favoriser euh, moom gouvernement bi dina favoriser ñi nga xam ni ñoo gën a faible revenu ñi nga xam ni ñoo maanaam borom ñu gën a néew ci ci askan bi na leen favoriser pour ñu jot ci mais dina fexe aussi ba nga xam ni ñëpp jot ci ci loolu nag le promoteur yi mel ni SDIS te monsieur Mountakha kan ñu jiite nga xam ne moom tey alaakul li ñuy wax du ci nekkul ci euh, du du du ci pour maanaam du bii mooy njëkkee njëkkeelam njëkkoon na bokk ci li ñuy wax cent mille euh, un famille un toit fekkoon na ko mu def ko aussi bii aussi bi ko état bi jóge jógee mu ne dina ci bokk ndax ku engagé la ci réewam ku bëgg réewam la. lépp lu mu dox ci ah, ci ci ci yàgg naa dox bitim réew mais lépp lu ma am fexe na ba indi ko fii Sénégal ci réew mi wuti ay partenaires ñu ànd ak moom ci liggéey bi ñu def ko lii nii aussi ci loolu la taxaw pour fexe 953 logements yi ñu def ko mu mu mu mu accessible pour population yi dans le cadre des 100 000 logements. ñëpp xam na ni euh, euh, lo demande sociale bi ci capitale beeg booru Thiès Mbour foofu la ëppee. mais fekk na ni euh, aussi tey gouvernement bi dafa am yenn yenn dafay jéem a décentraliser dafay jéem a décentraliser aussi pour que mun a accessible à tout le monde parce que commencé woon nañ ci Mbour ak Thiès euh, ak li jege dakaar mais ñëpp xam na ni pour euh, viabiliser am fa ay terrain yoo xam ne ñëpp mën nañ ko séddoo du yomb ci askan bi ndax ku ñëpp xam nañu fi fii njëg terrain tollu ci booru Dakar jéggi na dayo njëg yi seer na métti na nga wàcc nga bugg ci ba aussi bëgg a fexe ni ci nit ñi mën a jotee foog naa du yomb kon décentralisation bi moo gënoon pertinent que commencé ci Ndakaaru ci looloo tax tey gouvernement bi xalaat des de des villes yu mel ni comme Diourbel Kaolack Louga euh, mag feneen ak feneen pour ñu mën a décentraliser mu gën a yomb ci askan bi ndax buñ ko jox defee ci bërëb yi nga xam ni mooy li jege dakaar ñëpp xam nañ ni le coût des terrains c'est euh, c'est excessif soo ko bëggee tey jë ut terrain bi aménager ko fexe ni ci nit ñu jotee day doon loo xam ne budget Sénégal ndax sax dana ko antan loolu mooy mbir mi waaw kon li yaakaar mooy bu ñu buggee nit ñi am fu ñu dëkk nañ ko fexe foo xam ne def ko dana yomb ci ñëpp na yomb ci askan wi dana yomb ci état bi dina yomb ci ñi koy ñi koy liggéey. bi ci topp nag mooy après aménagement site bi danañu aménager site bi. daa bu ñu gannaaw bu ñu defee con logement témoin danañu ko euh, aménager site bi phase phase bi ter euh, euh, phase première phase du projet bi mu ngi mu ngi tegu ci quinze hectares. pour 500 logements 500 logements yoo xam ne qui sont répartis en trois types trois standing waaw standing yooyu di nga ci am F3 F4 ak f mais standing yu gën a ëpp nag mooy standing bi nga xam ni moom la ñi gën nu euh, euh, ngi ko jagleel ñi gën a faible revenu maanaam F4 ak F3 F5 bi dina doon euh, grand standing loolu yëpp boo gisee mu war a am pour promouvoir la mixité maanaam du ñu def rek loo xam ni euh, pour feebar bi dañuy fexe ba ñëpp mélangé wu loolu loolu mooy mooy mooy mooy ba composante bi gën a accessible mooy F3 mais en en en régime euh, immeuble collectif mooy gën a yomb parce que li ma li ma la waxut mooy euh, dinañ les logements seront de deux deux sortes dina am bu nga xam ni pavillonnaire la maanaam logement individuel la comme état comme villa yeneen yi dana doon immeuble collectif du lu dépasser R plus 3 waaw loolu nag du doon lu doon lu lu ci ëpp mais dinañ fexe daal ba nga xam ni en fonction demande bi nu mu demee ba euh, li ñuy tabax askan bi mën cee jot ci lu yomb. je crois que man ak euh, PICOC ñu la euh, njëkk a ci promoteur ñuy def ay logements sociaux man ñu jox ma Tivaouane pour ñoom jox leen jam ñaajo ci inondé yi aussi président bi muy def inondé yi taw Tawfekh Yaakaar aussi. joxoon nañ ma ci sans logement euh, maa ngi sant yàlla bokk naa ci njëkk a pare donc fii euh, yàlla ko dugul mais mille 2014 laa waroon commencé euh, waaye yàlla dugalu ko moo tax bi 100 000 logements yi tàmbalee maa ngi remercier le ministre de l'urbanisme moo boole ma ci fekk amoon naa terrain bi depuis 2014 te li ci desit muy bëgg-bëggu sëñ Tuubaa ndax yàgg naa waxtaan ak sëñ bi. ma xam mébét mi mu am ci njaareem loolu itam lu mat a baax la xam naa sëñ bi bu sañoon njaareem yi daq ci ci réew mi donc bokk na ci euh, sama pas-pas euh, ma liggéey logement yi euh, kon noonu la demee kon maa ngi remercier de par monsieur le gouverneur l'état du Sénégal de m'avoir fait confiance pour ma def logement yi wax nga ko état du Sénégal quand ci politique moo indi si woon quand même programme 100000 logements li ko waral foog naa ne gis nañ ne dëkkuwaay parfois dañu nekk jafe-jafe pour personnes yi nga xam ne sont de faible revenu mais également beneen solution bi bu mu bëggoon apporter mooy ci wàllu loyer gis nañu parfois xaw na xaw na cher surtout ci capital bi moo tax nag euh, programme bi mel nii dina tax euh, dëkkuwaay yi gën a gën a yem. maintenant dans la région de Diourbel nag euh, ñu amoon euh, ñu bokk ci programme boobu parce que yàlla def na quand même comme ni ko sëñ Mountakha Kane waxee fekk na fi si biir euh, commune Diourbel mu amoon fi ce qu'on appelle une ZAC muy zone d'aménagement concerté de 100 hectares donc FONAS si lañ jël 40 hectares jox ko sëñ Mountakha Kane avec SDIS pour mu dugg quand même si programme 100 000 logements boobu maintenant nag état ci accompagnement parce que mooy aménager maanaam loolu faut ñu wax ko parce que na benn société bu ñu tuddee SAFRI liggéey mooy peut-être moom mooy def ce qu'on appelle les VRD mooy voirie yi ak réseau divers mooy fexe mooy def yoon wi loolu mooy contribution mooy indi également ndox mooy indi courant lool su ko defee tey ji investisseur bi mun naa ne njëg li ma doon jaayee dina tax mu gën a wàññeeku donc su ko defee askan bi mun see jot te li ñu ciy gën a reful rek mooy seetlu nañu également état def na confiance également au promoteurs nationaux maanaam ñi koy def doomu dëkk bi la rawatina ki koy defit doomu dëkk bi la mais également nekk taalibe nekk doomu njaareem kon yaakaar naa loolu également c'est un plus donc foo naa li ci des rek mooy euh, état je crois que marché bi ñu waxoon pour VRD Safri lancé na ko ba entreprise bu war a aménagé du yàgg mu commencé aménagement site bi muy ZAC bi nga xam ne moom lañ moom la ñu def tey jii pose première pierre bi di ñaan rek borom mottali ko jàmm ndax gis nañ ne njaareem dëkk la boo xam ne dafa commencé màgg ndax soo xoolee impactu Ila Touba bi léegi da cee am da am solo ndax léegi mun nga fee jóge léegi dem Dakar ci benn waxto genn wàll alors que loolu tey jii dangay nekk ci yenn dëkk yi nekk di ci xat wala nekk ci zone yoo xam ne dëkkuwaay bi demul noonu dëkk njaareem di fi xëyee dem lu jënd sa soxla ñëw fo naa ne moo gën a yem soriwul te également Touba kon dëkk la boo xam ne fu naa ne ci en terme de stratégie fa mu nekk fu naa ne am fa dëkkuwaay dina gën a yombal quand même ci yenn yenn nit ñi pour ñu dem moo tax programme bu mel nii tey ñaan suñu borom ak euh, ñi ñi nga xam ne ñoo jël seenu koom def ko ci suñu borom may leen lu ñu ko gën a mottale pour nekk njëriñu askan bi yëpp quand même. tey ñaan lii nga xam ne tàmbali nañ ko tam mën a amal njëriñ dëkk bi ak réew mi yëpp ñu ngi ñaan rek euh, liñ ci bëgg lépp rek yàlla nañ ko ci am nu kawe njor tam sedd guy rek. lépp luñ ci luñ ci xalaat ci aw yiw ak ak ak ak ak taar daal yàlla na ko weesu yàlla na ko weesu suñu Muntaxa it yàlla na ko yàlla yàggal moom mi jiite yoon suñ Tuubaa ba li yéeneem ak bëgg-bëggam ci yoon wi lépp matal gu sëkk rek te ñaan ko moom dina am ñu ngi ci ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax ñu ngi ci am mbégte Muntaxa yoo tam lañ ci bëgg yéene ko ci yàlla na ko ci am ba gisul kaw njor waaw tubaarkàlla